lecteur auditeur yu Waarwi TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen a ngi seen émission jàmbaar yi tey ñu déplacé wu ci fii nga xam ne mooy saalum sunu waajur sunu nijaay Serigne paap Ndiaye ñu fekk si ko fi ngir séq ak moom ay jataay yoo xam ne dañu koy jagleel jàmbaar yi nga xam ne dañu nekk ci biir réew mi ak fu ñu nekk ci bitim réew it jàmbaar yi ñu fekk leen fa séq ak ñoom waxtaan partagé ak ñoom xam-xam bi nga xam ne am nañ ko askan wee xam ne lii la ñuy liggéey kon dañ koy bàyyi rek mu daal di nuyoo ak euh, téléspectateurs yi koy bàyyi xel ci Waarwi TV bi bu ko defee ñu dugg ak laaj ak tont dox suñu diggante ak moom sëñ Pape salaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullah barakatu maa ngi leen delloo siyaar bi bu baax a baax yéen waar wi TV leen sant euh, di siyaar rek ak di nuyu euh, samay waajur rawatina ñële toog ne Kumba Mbar bi Baye Kumba Jaxate yor fi ay doomam indi leen ci muy ci mini karaté yooyu waaye di nuyu tamitam sama jàmbaar yi nekk fii ci biir di siyaar tamit dëkkandoo yépp di sant tamit samay waajur waaye di santam Cheikh Abdou Fatah Mbacke mi nga xam ni moom ma ci tax nekk ba na leen waaw maa leen di sant bu baax daal. jërëjëf kooku mooy suñu nijaay sëriñ Pape Ndiaye ñu fekk si ko fii yaakaar na euh, ay spectacle yu bari da ngeen koy gis ñaare xañ na jëmm ji man ngeen ko xamee waaye xamu leen woon ndax armation lay defoon bu ñu bëggoon a xam euh, Pape Ndiaye mooy kan lan nga ñuy tontu. Euh, Pape Souleymane Ndiaye. ba talib Cheikh Abdoul Fatah la talib Sëñ Touba eh, di dongo bu dëkk Touba fii ci Darou Khoudoss waaye jàngee lii ngeen ma fekk tey itam tam fii ci Darou Khoudoss eh, waaye tamitam eh, bokk kook wala ma ay encadrement yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoo may jàppale dama soññi ba gën a ba nëgëni si. jërëjëf Pape Souleymane Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci tontu loolu xam na ñu bàyyi ko rek mu yeggal ñu wax ñu Pape Souleymane Ndiaye moom mooy kan ak euh, armation bi kañ la ci dugg ak euh, fan la ko jàngee ak yan diplôme la ci am ba tey muy jàngalaate lii di armation. waaw ginnaaw bi ñu yàlla bu baax armation moom Touba gi laa ko jàngee bu ma koy jàngee nag boobu Mbacké moom na ab saal. ci ay 91 euh, 92 boobu benn saat rek moo nekkoon Mbàkke ñu koy wax Njaga Mbay sedeb su Mbàkke waaw foofu laa jàngee aar bi euh, boobu tamitam jafawoon na trop yomban na trop waaye gëm-gëm rek waaw après mooy nit ki lépp lu mu bëgg rek war na caa wane gëm-gëm bu ma sëkk euh, kam lay kàttam ginnaaw yàlla mën a parce que dem na bu booba Mbàkke ak Touba juróomi dërëm la sept heures ngay oto dootu am quoi booba fii peron bi euh, fi la Touba yem bala ngaa gis ay kër maam yegg tablu caabi boobu Mbàkke tablu caabi la yem boobu arrondissement arrondissement rek moo fi nekk muy boobu tiwil yi xaw nga nekk boobu rek moo fi nekk ci digg waaye ci des yëpp ay papton ki sumpa ki ak i caxat boobu moo fi nekk mais sama gëm-gëm la àndaloon ak sama beneen xarit bu ñuy wax euh, Ndiaye Ndiaye moom itam mi ngi ci ba tey doomi Baye Sam Ndiaye mi ngi Darou Khoudoss mécanicien moto la mooy itam quoi. mën nañu xam armation bi ñu la fekk ngay def mooy ban armation. armation bi nekk mooy euh, sotokaan mooy sotokaan euh, sotokaan nag mën nañ ni armation yëpp mën nañu mooy mooy garab gi mooy taatu garab gi quoi mooy taatu garab gi ci ay branches ci la euh, taekwondo génn ci la sutur yu génn ci la wutur yu génn yu bare bare ci armation ci lépp luy dóor bokk na ci li nga xam ne maanaam ci taatu tuur suufu sotokaan la génn quoi. armation dañu gis ne tubaab yi li euh, ñi taxul ñu fonk ko loolu lan moo ko waral. Euh, li tax ñu fonk ko mooy dañuy wax ne maanaam ku dëng du jàng armation tubaab bi loolu la ñuy wax ba tey boo doon cëpp. yor passeport ci passeport yi ma xam ne mooy passeport parce que dañoo nekk ci salle boo xam ne fédération Sénégal ci la nekk ñuy affilié di yéegi ay championnat di dem fu nekk tamit tam ci Afrique élèves yaa ngi fii dem mais boo doon cëpp tey ci réew moo dem salle bi nga jëkk jot ma dinañ la héberger ba nga am foo nekk quoi parce que nee nañ ku dëng moom du jàng arme waaw du jàng arme bi quoi mais dañu gis ne wàllu armation comme ni ko armée di defee nga xam ne armée boo libéré rek dangay looy xalaat mooy wàllu sécurité dañu gis na yéen itam nit ñi dañ leen di utiliser ñaare ci manifestation yi na ñu def armation ndax loolu du waral euh, comme li nga wax ne armation ku dëng du ko def ndax du yaakaar dañoo jàpp ci leen ak dëng wala yu mel noonu. non kenn ku ne da ngay dem ba ci biir xam nga boo demee ba ci biir dafa bari ay branche ko maanaam mën ngaa dem ba ci biir bu dee militaire maanaam mën naa jàng euh, armation bi dem ba libéré. maanaam def formation garde sécurité quoi nun nag en général mais am na gone yoo xam ne ñi ngi leen di jël ñi ngi def euh, ay formation parce que am nañ ko ñoo xam ne ñi ngi mbàkkee ci club bi lañu def nañu def nañu ay formation ba mu ay diplôme mais pour sensu liggéey maanaam loolu mooy mooy xaw a jafe quoi euh, mais li ma la gën a leera daal mooy armation ku dëng du ko def way ku xataf xolit du ko def mën naa rawatina stotokaan bii ñuy def mën naa ne daara la quoi sama sanse yi dal ma doon wax ni ma euh, bu fekkee da nga am xale bi nga xam ne dafa réew ba war dem kokki seetal salle bi affilé nekk fédération Sénégal nga yóbbu ko parce que fii daara la mbàkk mbàkk yi fi nekk busu busu fi nekk bu ñuy duggee ci biir njaay la ñuy sant li ma wax moom lañ jëf gars yi fi nekk yëpp maanaam samay argent lañu waaye ñëw ñëpp ci ma rek la ñuy xool maanaam oh, bu fekkee da nga jaar ci stade bu ne ci fédération Sénégal xeex du la yomb man bu ma xul séené ko xuloo sax damay daw damay tiit quoi yaakaar naa euh, no bokk koñ bi mais mosulaa gis ne Pam Ndiaye xuloo na wala Pam Ndiaye xeex na quoi samay élèves tamit ñi nekk fii ak ñi nekk feneen nekk ay gradaire maanaam kenn mosu cee ñëw ni ma sa élève bi xeex na wala mu xuloo daal fii daal daara la discipline la moom lañ fiy def quoi parce que boo duggee ci biir boo bee bunt bi boo duggee da ngaa war a nuyu nee bi dugg ci ne di ko nuyu te kenn nekkulooy néegu ko sa nga nuyu ko kon loolu discipline mënut a passé loolu quoi waaw loolu discipline da ngay nuyu nee bi us li koy koy nuyoo mooy fermer sa say ñaari tànk sa say loxo dale ko si leen daal ni us daal di door a dem bon boo ko dafay seetlu tamitam ci ñi nga xam ne ñoo doon dugg maanaam kuy dugg di ki yoroon kuuri xale yi di nga gis ko taxaw kenn ku ne bala ngaa dem di ko nuyu waaw ci nuyu woowu après mu mu la jàll après nga door a dem quoi. mën nañ xam jàngale mi kañ nga commencé. jàngatu. jàngale bi jàngale bi euh, jàngale bi nag maa ngi ubbi le 16 août 2011. 2011 waay la ubbi Sall. maa ngi ubbi fii ci buntu kër bi yaakaar ay loolu xëy na loo doon doon nga ne tam le 16 août 2001 parce que maa ngi waroon euh, ubbi le mais sur boobu da doon taw muy bisub altene muy taw bu bari nu ni ko nëndik ba euh, le 16 mille 2001 yi mooy ca talaata ja ci la ubbi quoi. mën nañu xam élèves yi ñaata lañ toll. élèves nag macha allah wax dëgg yàlla parce que ni nga gis ci biir nii am na sax ñu ñëwut quoi. am na ñoo xam itam génn nañu nekk feneen quoi xam nga sport moom ndaje moo gis noonu lay demee quoi. des fois da nga gis en groupe ñoom ñëpp dañuy ñëw mais des fois da nga gis ay retard am ñoo xam ne des fois itam dañuy génn boo nekk ci leneen quoi mais dina toll ay période yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy ñëw daje siwaat fii daal. waaw ndax fii mooy seen kër daal. waaw ndax xam nañ ne xale yi bu njëkkee dafa am jikko bu ngeen njëkk dindi ci da ngay continuer ci ñoom. Euh, non am jikko bu ñuy dindi ci ñoom. ki ñuy noppal nag maanaam nga ñëw yor jikki ba nga xam ne moom la ñu bëgg mu yor jikko bu rafet jikko bu baax gis nga bi ñuy nodd dañoo taxaw boo demee ci biir ay satala nga fi ak i dari jullikaay dañuy julli quoi bu ñu nodd dañuy taxaw kon jikko jooju euh, mën naa ne daaral joo xam ne man discipline bi man a foo mën a dem boo ñëwee tamitam ak loo ëndaale moo xam beneen forme boo nekk la waaye boo ñëwee discipline bi nu soxla muy yarute gi tey xam li ngay wax muy yar bi loolu il fallait que maanaam nga am ko loolu la ñuy jëkk a jàngal quoi. formation département de Mbacké dafa mel ni gisuñu seen bopp euh, mën naa ni euh, gisaguñu sunu bopp ci loolu quoi saali bari na fi trop waaye gisaguñu suñu bopp euh, ci ci ci ci armation bi ñuy def quoi muy sotakaan bi muy def muy tànn taekwondo muy kung fu ñëpp benn vent la ñëw parce que sotakaan bi ma ko def itam maa ngi doon def ay cours taekwondo bële maa ngi doon def ay cours yi comme mais booba tamit lii laa gëmoon mais dama doon chercher quoi waaw gisagu mooy oh, gisaguñ ci suñu bopp. parce que lu loolu ma xam ko noo fi bokk nekk tey nekk naa président euh, diggante Mbàkke ak Touba waaye. waaw xam naa ci lu gisuñ ci suñu bopp te itam euh, mën naa ne buñ ci doon gis suñu bopp rek pour le moment man danaa gis sama bopp parce que fii ci biir maa ngi fa ay champion yoo xam ne maanaam. dem nañu Boussoumana dem nañu Maroc dem nañu fu nekk quoi sama beneen dama mu ngi fële ci ci yoonu jéemul kooku mooy tam dem na fu nekk ba Sénégal bi ñu jëkk a def concours alxuraan bi ci sport moom la ñuy yóbbu mu présenté fa sport Sénégal mais taxul ñu gisaguñu ci suñu bopp quoi. parce que ah xañ na euh, xañ na ñàkk am ñunu taxaw parce que branloo day am te Sénégal léegi yàlla ma yàlla jégal mais warante dafa bari quoi. Hmm. ki ngay yaakaar ba nga teg ko défense sax maanaam yaakaar dalay jàppale en kooku sax mooy mooy mooy mooy def leneen doo mën a comprendre quoi. Sénégal moom loolu yàgg na fi quoi. ñu fàttali mbokk yi euh, yéen a ngi seetaan Waar wi TV tey ñu nekk ci émission jàmbaar yi. ñu seet si tey salle de karaté Pape Souleymane Ndiaye di suñu waajur di suñu nijaay ni mu ko waxee noonu la ba ñu ko xamee yàgg na mi mosuñu dégg ab xuloom wala ab xeexam dañuy wax ne karaté nag ñaari ku koy jàng dañuy xalaat ne ndax euh, bu xeex dikkee euh, nga mën a défendre sa bopp yooyu waaye moom ni mu ko waxee noonu la xale yi boo dikkee fii gis nga bi ñu noddee jee dañu bàyyi li ñu doon def léegi ñoom dem julli ji xam naa ne dañ lay bàyyi rek nga tàggoo ndax temps dafa xaw a dafa xaw a jafe te may nañu temps bi kon ñu bàyyi ko mu tàggoo bu ko defee euh, kàddu yoo xam ne waroon nañ la ko laaj lañ la ko bu ko defee asalaamaaleykum. waaw xanaa di leen sant rek euh, li may tàggoo tamit mooy comme ni mu léegi bare na fi ay champion parce que ñun ab club la ñu yor quoi. club bi tamit yaatu na parce que sama beneen la mi ngi fii ci mi ci wetu jëmul bala nga yegg monument bi quoi ku ñuy wax Galas Bey def champion la dix ans carrière te ba tamit mi ngi équipe nationale quoi. bon beneen xale bi mi ngi fii ku jigéen. moo tax muy Anta Diouf yaakaar na xam nga ko rakki Mor Ndiaye ñoom moom itam champion la 22 combats yi bu ci neex moo xam ne tam amul benn bo benn defet 20 yëpp médaille or la jël coupe deux lañ ko éliminé par décision arbitre boo demee Mbàkke tamit am nañ fa ay champion yooyu xam ne ñi nga fa nekk yoo xam ne fu ne dañ fay dem ñoom itam quoi mais nag suñuy moyen mooy luñ amul parce que nooy gars yi xam nga mën njaay male mooy ginnaaw man après moo fi nekk ak ki ma doon wa moom ñoom ñooy wax gars yi nañ jaayante jàppale gone yi quoi pour ñu dem euh, Dakar ci compétition yi maanaam bu fekkee nag dañuy pour euh, équipe nationale waa fédération ñoom ñoo leen di jël en charge ñoo leen jox añ ak xeet yooyu bu ñuy dem après ñu jël avion sinon peut fu jël avion après ñu jël oto quoi mais ay moyens dëgg-dëgg nun nooy demee ci biir quoi mais nag kon jàpp ci mooy du gouvernement bi moo ñuy jàppale du keneen ko ñuy jàppale keneen comme li nga wax léegi sàng fàttali ni wax nga ni léeg-léeg dañuy utiliser ci ay euh, ay man ñuy manifesté wu rek maanaam alors que maanaam politique wala xeet yooyu jëlee ñuy sécurité mm-hmm. te national yooyu sax man euh, c'est très rare leen ciy dem léegi quoi parce que da ngay dem ba yeewu ci jamono xam ne dañuy utiliser te boo fa xeexee ñu gaañ la wala leen yooyu yëpp nit ki toog na nga di ko xeexal mm-hmm. ci lu dul yooyu itam dafay xaw a doy war quoi mais daal euh, vraiment ñoo ngi taalal ñëpp loxo ku jàppale Euh, ñu nekk ci aar bi parce que man naa ni ay entreprise lu ñu yor entreprise yoo xam ne nii euh, lu dul jub jubaleen ko gënal dañuy former ay xale pour ñu yaru topp seen diine waaye topp seen liggéey tamitoon parce que ñi ñëpp kenn ko ne mi ngi mécc mais teewut bu heure bi jotee ñii dañuy jàngale ñii dañuy yor ay place mais li wóor daal mooy kenn ku dañuy ci mi ci xale ñii ngi jàng français ñii itam ñii ngi jàng alxuraan kere bi ñu teree gis nga sama masque bi nii ñoo ñëpp dañu yor ay masque kere bi ñu teree fii dañ dugg fii wàcc fi ay kaamil man leen na dem kon ba jotaan ndigal bi ñu jotaan a continuer quoi mais nag vraiment ku ñu dimbali surtout département Mbacké moo amut ku la ko wax itam dañuy naxante rek mais amu fii lépp lu nu am ñoo ko jaayante ci sunu doole wala sunuy pexe waaye ab du ab gouvernement du du du ñu fi nekk daal waaw mais nag noo sant yàlla parce que nun gëm na leen def te yàlla doo nga tax parce que dañ doon dégg ci borom xam-xam yi di wax ni yonent bi ne ndaw li am doole te tàggatu moo gën a ndaw li am doole te tàggatuwut heureusement lii tamitam boo dégg ni lu la ñuy tere Tuubaa la barki Cheikh Moudou Moussa doon ci gis man bokk parce que ay taalibe lañu suñu waa nekk ko ak xan kon nag lépp loo xam ne dañ koy bañ ci Tuubaa nun loolu dañ ca war a ko waaye lépp lu nu am ndigal itam loolee dinañ ci nekk waaw loolu loolu daal euh, di sant tamit na euh, ku demee mën Njaay ak Njaay ñi nga xam ne ñoo jiite xale yëpp euh, sama baay bee toog itam ak sama bi ñoom itam kenn ku ne yor ay doomam maanaam ñëw fii ñëpp ñun ñëpp ñoo ñëw ngoongo jo day ñëw fi toog fii ak noonu di waxtaan ak noonu vraiment ba suñu entraînement jeex wax dëgg yàlla di sant tamit xale yi gis nga leen ñi ngi toog nii ñoo tam noo seen discipline nii ni ñu toogee te ni ñuy toog nii ci salle bi yor discipline bi seen kër boo fa demee léegi noonu lañuy mel quoi ku ci réew nit boo ñëwee dañ def ci yow loo xam ne jikko ji nekkoon ci yow dañ ko sens def ci beneen jikko daal waaw xam naa nag ñu ngi euh, sant ñëpp di leen sant yéen itam kostatam ñu lay sant di sant euh, sa xarit bi nga dal Matara Moutaka ah si Moutaka ah, ñu ngi lay ziare baax te la sant kon yooyu itam euh, comme li may xale rek heure bu nu solo kiw ne ba jëm si salle bi tànk bu ñu fa jox daje ci nañ ci ñaan daje daje gi yàlla waaye yéen itam tànk bu ngeen ci dox na ngeen ci dajeeg yiw yàlla mm-hmm. yal na sa borom fay euh, jàppale yal na taxaw borom euh, seen sud bi ngeen nekk itam yal na ko sa borom yëkkati ba ngeen ba ñu seen ko fépp daal ñu itam yal na sa borom jàppale euh, te dëgëral nu te lépp luñ ci liggéey nag mu di ak yàmm yàlla rek waaw di sant ñëpp. jërëjëf kooku moo di sunu nijaay Pape Souleymane Ndiaye ñu fekk si woon ko fii tey ci bi nekk fii ci Darou Khoudoss dend ak tokkaru Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma bi moom léppam Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma la euh, mu jébbalu woon ci Serigne Abdou Fatah ñu koy ñaan sunu borom tabaraka wa taala yokk ay leeram te jéggal ko ci barsakul Muhammadiya maam Thierno Birahim Gueye ngeen àndaloon ci caméra bi euh, Serigne Mountakha Ba moo fa féete woon ci wàllu montage yi ñu àndoon ci ak Mouhamadul Bachir la kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu